man personnellement je veux pas bëgguma su nit nekkee ci yenn yi ma ciy wax. j'ai toujours esquivé d'en parler mais ngaaka xam na fam nekk xam na magu ngaaka xam na sa maman xam na tout ce que je peux mooy la mooy la soutenir ci lu mu laaj nag ci li ma ci li ma jàpp maa ngi koy def à ma manière et c'est quelque chose boo xamante ni on n'a pas besoin de le dire c'est un Sénégalais li mu def am na wala amul mais je pense que ni nit bu defee erreur taxaw demander clémence war nañ ko mun a jéggal te jox ko une une seconde chance jox ko bénéfice du doute bugguma ci dugg bugguma ci dugg sérieusement bugguma ci xuus ba ci biir mais daal man damay wax justice damay demande clémence damay demander clémence justice bàyyi ko c'est un gosse pétri de talent pétri d'avenir une très bonne relève ñëw ba nekk ci kii li laahi war a suuli c'est un soutien c'est un soutien dafa fekk yaayam ci condition yu metti bi mu njëkkee commencé laal cachet li mu ci xalaat mooy faire déménager sa maman ne yaay bés tey buggatuma dara war la di ko respecté di ko def yàlla suñ borom di ko ci jàppale te fis jàppal ni loolu nga def pour sa yaay foo nekk dina la wàllu mais man day man Landing Ndesane kilifa bu kër gi justice man dama lay demande clémence ngir yàlla ngeen bàyyi Ngaaka Blindé te yàlla rek tax.